waaw c'est lu am solo la dañuy remercier TENRA ci organisation bi parce que euh, lu ay ndaw séq la te li ci ëpp xaalis la ñuy wax fond la ci lañ fond la ñuy wax donc day bëri coow mais ñun bokk nañ ci ñu ko yàgg a ba mu exister gul ñuy exister en tant que association Lui, ça nous quelque chose qu'on réclame parce que ça doit nous revenir de droit. Parce que qu'on est des jeunes Sénégalais, di liggéey ci benn secteur secteur boo xam ni amul lu ko état di accompagner donc bi biñ ci xeexee ay at ba mu dañu mettre ko en place mu évoluer évolution bi du ci xaalis bi kese mais aussi ci acteurs yi parce que xam nañ suñu secteur avant fond bi di ñëw bariwuñu woon ñu organiser wu mais fond bi permettre na ñu forma ñu organiser wu ñu formaliser wu en association en entreprise en tout cas nit ñi xam ni war nañ dañu war a dem ci lu formel. il faut ñu may ko tamit temps mu màgg parce que hip hop bi def na fi 30 ans wala lu xóob fon bi amagul lu dul 5 te moom fi mu ñoo ngi koy soog a am donc dañ ko war a sàmm. acquis la pour les jeunes du ma wax rek ñu nekk ci culture urbaine pour jeunes sénégalais yëpp parce que du ji art bu ñu waxee fond rek du artistes kese. am na ñu nekk ci yeneen secteur yoo xam ne day gravité autour des cultures urbaines wala si culture urbaine dañu war a bénéficier wu si fonds bi donc tey bu waree dem milliard te ba mu nekkee trois cent millions rek coow kese la woon il faut ñu wootee loo ndaje yoo xam ne comme ñun daa am lu ñuy imposer suñu ay état ak suñu ay dirigeants ci wàllu gouvernance ak leneen fonds bi tamit lañ ñun dañ ci am exigence boobu dañ ko war a commencer sur si suñu bopp ba pare mu nekk loo xam ne ñëpp koy waxtaanee donc agriculture organisée wu mais ku mel ni optimiste bu jëlee initiative organisée lu mel ni mu nekk débat populaire ku nekk wax nañ ci xalaatee ñu xool li ci baax liñ ci rafet li ci déggoo ñu tënk ko ni nii lañ bëgg a fond bi doxee là après ñu ko war a dox dox ko dootu nekk xalaatu Matador wala xalaatu euh, Pendra wala xalaatu Baara bu ñuul day nekk xalaatu ñi ñi nga xam ne ñor na leen parce que am na ñoo xam ne ñoru leen mais ñun lii dañoo ñor. parce que ci lii la ñu mën a taxaw ni lii ça nous revient de droit lii la boo foo amee ay droit nag am nga ay devoir boo jotee say droit tamit defal sa devoir parce que aussi duñ ko nangu kenn dañu ko yàqal du nekk état du nekk su ñu nekk ci suñu secteur loolu day leer kon ñun ñoo ko xeex ba mu ñëw ñun ñoo ko war a protéger suñu bopp wutal ko ay garde-fou mu nekk loo xam ne day am njeexital pour waxuma la pour ñii di commencer mais ñi nga xam ne ñi ngi li ñuy wax ni ñi ngi soog a formalisé wu dañ koy gën a encouragé parce que ñooñu suba bu ñuy wax ICC entre industrie crée culturelle et créative industrie la ñuy wax industrie dëggantaan ay entreprise yu bare xoy yu nekk en chaine la te chaîne yooyu mooy maillon yi moo ñoo nekk nii bu juddu tey buy juddu suba dañ leen a war a tenir en compte parce que loolu suba boo tax ñuy egg fu ñu bëgg a jëm vraiment loolu lañ jublu ci li mu bañ a nekk xalaatu benn nit wala benn structure wala ay nit mais mu nekk xalaatu ñi seq culture urbaine bi yëpp. revendication yi déjà man li may wax mooy c'est dafa tuuti parce que man su may wax man ak gars yi fi ñuy waxee bokkul parce que du lu may xaar ci man mais man damay waxal askanu ñi nga xam ne ñoo nekk si culture urbaine yëpp communauté bi. boo demee cinéma wala ci yeneen secteur yi la aide à la presse c'est de milliards aide la ñun fonds lañ ñu jox. pour ñu développer benn affaire et aujourd'hui si on est en train de discuter autour de benn milliard moi je dis que ni ba léegi joxaguñ ñu gëdd bi ñu am war a am ci dëkk bi xamaguñu lan la ñu mën a apporter comme valeur ajoutée ci développement ci emploi ci économie ñun xam nañ ko donc milliard bi man samay revendication booleeg yi fi gars yi def mooy milliard bi dafa tuuti ñëpp a ngi wax milliard milliard milliard cinq cent millions la fekkoon ñu yokkaat ci cinq cent ñu un milliard cinq cent millions la ñu yokkal mu leer moo tax mu dem un milliard un milliard waxuma la communauté bi ñu ci nekk ñëpp de les porteur de projet cinq cent la ñu ñi jàll ak ñi jàllul ñi déposé année bi cinq cent la ñu cinq cent vingt deux boo ko diviser par milliard ku nekk deux millions la million millions mënu la def sax jo ci an ab structure bu ndaw buy soog a judd sax jariñu la dara donc ñun foofu la ñuy waxee ak état na gën a xam jëm a saytu suñu secteur lan la ñuy proposer parce que force de contestation la mais dañuy proposer tamit on propose ay emploi dañuy proposer développement dañuy proposer une économie loo xam ne day suqali Sénégal te mën nañ ko jaare ci culture mën na jaare ci culture urbaine donc secteur bu mel noonu boo ko bëggee suqali du benn milliard nga ciy def man samay revendication foofu laa koy gën a porté un milliard lu xeebu la lu tuuti la xeebuñu ko nag te dañ leen di féliciter remercier leen parce que wax naa plus de trente ans ñi ngi fi ñu xaar fond mais tey adduna bi egg na foo xam ni ci secteur bi ñu nekk nii bu ñu bëggee dab yeneen réew yi il faut que état def ci bu baax loxoom parce que du artistiquement la gars yi li ñuy comprendre du ay artistes la ñuy jàppale ay entreprise la ñuy créer ay emplois la ñuy créer développement la économie la ñuy créer ñu ngi ko xamee noonu donc man bu ñuy see fekkee ñu ngi ñuy déglu nañ ne xam ne milliard bi xeebuñu ko ñu ngi leen ciy remercier mais tuuti na trop par rapport ak secteur bi. parce que 500 euh, euh, structures on est plus de maintenant mën naa wax ni plus de 5000 parce que bi ñuy saytu di wax le nombre de groupes de rap kese 5000 la ëpp na 5 ans 10 ans tey bokk ak génération bu bees bi ñëw am ay espoir yu bëri ci secteur bi dañ leen war a préparer le terrain terrain boobu ñu koy préparer mooy industrie boobu ñuy wax noonu te industrie boobu du ay discours du ay document concretement sur le terrain il faut ñu am ay acteurs yoo xam ne ñoo koy matérialiser ci loolu la ñu bi loolu lay jariñ donc un milliard bi buñ ci eggee bu ñu fekkee ne sàmm nañ seen kàddu ba teg ko année bi nañ fexe ba déwén ñu doublé ko wala ñu triplé ko parce que tamit loolu mooy li ñu li ñu li ñu gën a li gën a yóbbal affaire bi kanam